voilà merci jërë ngeen jëf tey nag ñu ngi ci Gambia réewu aadama Barrow lan moo ñu fi indi Buur Promotion Buur Promotion nag moo tëgg làmb ju mag daal di koy jagleel nag doomu Gambie ak doomu Sénégal kan la ci jagleel ci doomu Sénégal ñu ne docteur Macoumba Diouf moo waral tey Sénégambia yëpp. daje nañu fii ci bi mu nekk télévision bu mag bi nga xam ne moom la ñu ubbi bees fii ci Gambie mu nekk télévision privée ñu war fi def signature contrat signature contrat bi nag war a dox ci diggante doomu Kaolack bi nga xam ne moom lañ naan Double Tyson ak Saay Saay ci kanam incha allah dinañ leen wan lépp loo xam ne xew na ci biir waaye bala ñuy sori damay xool ki nga xam ne mooy Buur promotion daal di koy indi rek Buur may may une minute voilà Buur tey ñi ngi ci bi nga tëgg ci lamb ju mag ñu bëggoon nga wax ñu lamb jooju nga tëgg noonu kan kan la ak ñan nga tuddee drapeau bi. Eh, jërëjëf jimaan eh, di la sant di la gërëm eh, lamb ji nak diggante say say ak double taisin la muy drapeau Ibrahima Cissé secrétaire to cabinet di bras droit wu président Adama Barrow ñu war ko def fi ci Gambie le 1 décembre bobu nonu dafa nek lo xamni moy ñaari at pour bi Barrow togué be légui waye benen drapeau bu ci topa di ki nga xamne moy mooy mairie de euh docteur Makumba Diouf gi nga xamni lim ñu defal biñu démé ben lat meng fekk ko fa fokk na ni lu am solo la té ndawi Sénégal ndawi eh, kaolak ndawi sin salum salum yépp dañ ko japp jox ko mu mom lepp kon digënté Balastar ak Boy Jola mooy deuxième combat bi bi nga xamni mom moy mooy euh docteur makumba Diouf ki nga xamni daf ko jël yépp délo ko jox ko président Macky Sall so man nak suma digënté ak Sénégal ak Gambie foog na ni lima ci béyu rek foog na ni yeen da ngeen ko eh, sétu bu baax so léegi diggante Sénégal ak Gambie li ma ci gis rek mooy jàmm am na te dañoo continuer di am jàmma jooju. jërëjëf Bour maa ngi lay bàyyi nga dem ndax amoo jot léegi bu ko defee ñu daal di continuer li nga xam ne moom mooy interview bi bàyyi suñu caméra woman mu daal di dugg ci biir wan ñu li nga xam ne moom mooy ambiance. Thank <laughs> you.